salaamaaleykum waaw ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp waaw bon gan ñeneen ñi doon xaar ñu ngi ñëw madame barke Sëriñ Saliou ci xale tuuti ci am nga métier su école tëjee doo fi ne di taxawaalu da ngay da ngay dem ca àll ba defi sa vacances di lijjanti loolu jëndee sa yaa. li ma waxoon ci madame Guèye dama ci jaarat tey li naa leen madame Guèye suñu relation de promesse ba ñuy xamante mi ngi nekkoon euh, direction réglementation secteur microfinance mu nekk sama jigéen mu recevoir ma bureau Dakar vraiment jox ma jël ñu waxtaan waxtaan bu yàgg donc tey su ma ko gisaatee. ci coobare président Macky Sall ak xarañam moom ak liggéeyam yàlla jox ko bii cër ba jox ko produit moo nañu lu dul di ko rafetlu di ko sant mu taxaw ci nag taxawaay bu rafet ak Pastef di ko def ni mu ko war a defee. di leen wax ni lii nuyoo la ndax ku la jox ndékki bu la jigee añ ak reer nga war a toog xaar ko élection yi nag comme liñ koy waxee nii ñaari xob la benn xob bi mooy candidat maire bi beneen bi ci def ci candidat wu département bi. candidat yi yëpp ci volonté son excellence le président Macky Sall la keroog maa ngi leen koy waxaat ma ne leen pourtant lu la ca kanam bu ñu mayee collège ñu ngi ko dese fii ñuy cinquante mille ñuy vingt ku ci nekk alors que collège yeeg di yi ci compétence président président conseil départemental yéen ñëpp taxaw leen ngeen mu wote président Moustapha Guèye mu jël département bi bu boobaa yaakaar naa dañ fi nekk ci cotisé ku nekk cinquante mille ak ku nekk ci la la yàlla wërsëgal nga def ko ñu tabax ñaari classe en ce ma day dugg ci loxo yomb te nag candidat yi président jël fexe ñu jàll mooy seen sat bu ñu jàllul rek sat ba dañ la ndax nag am na ñu fi doon wax ne ñii waxuma Jakarta waaye pëne la soxla ñu ko indi ci dëkk yàlla def na madame financement yaakaar naa la mu indi ak la des mooy weddi gis bokk ci donc vraiment di leen santaat di leen gërëm bu ñu taxawee taxawaay bii la ñu warloo woon ak askanu lu nañ ko ba mu jeex la des nag pour récupérer dëkk bi teg ko ci loxo président Macky Sall. élection yi ba lépp lu ciy wut ci ndam ñu gañe ko gañe bu yomb te leer. démb yaakaar naa ngoyaan bi ñu pare ne la woon ka moom bis ba bi Amazone yi duggee ko way yaakaar naa daa génn bàyyi ñu ko. ça veut fekkuma ko woon ndax dama doon bañ a ñëw pour nag jël bisu jàmbur waaye ñoom fi toogal bañ fa demee nangu nañu bis ba nañu nangoo bis ba nag nañ nangoo noonu commune bi bu leen leen may dara bu leen tooñ nag bu leen wax wax bu tegginuwul waaye bu leen bu leen ragal xam leen ne ñun ñëpp ñu ngi seen li ci warta nañ ko def ba mat sëkk. di leen wax ne aussi keroog bi ma ñëwee ci centre bi gis naa ñuy jàng néew loolu te jàng mooy développement jigéen wax naa ko keroog avant ouverture bi ak inscription yi képp ku bëgg a jàng ci commune cinquante six village ci centre de formation bi na dem jàng jël na ko en charge muy sama participation ci éducation bi démb it ci mboyaan bi ñoo joxe woon bis bi naa leen na personnel santé ba fa nekk te ñu nekk ay stagiaire muy infirmières yi fa nekk ki nekk case de santé mbuñ boo ki nekk case de santé yi nekk ci commune bi yëpp

ñu eggale yëg liggéey bi di wax mbégte ak contentement bi ma àndal ñëw ba Ndoulo fekk si sama mag sama xarit ma Ly Amath foog naa ni ñëw bi tey la ko yàlla dogal waaye ban ka dalee mbébét ak tey ëpp na ay at ba ñu xamanteeg léegi yàlla def na ëpp nay at tey la ko yàlla dogal waaye loolu yàgg mbébét la man it may doomu dëkk bi sama papa ji ci gannaaw wax na ko léegi foog naa ne tonton Abdou wax na ko léegi ku xam Fatou Diané ci biir réew xam ne doomu politicien la pur et dur am na loolu yëpp Ndiol Diané lu PS am ci Diourbel wala PDS ñoo ko fi indi kon ñun politique dañ cee jub fekk leen ci ngeen di ànd ak suñu waajur mu rafet lool waaye ku xam Ami Logé ca Njaaréem xam ni politique am da koo tegoon ci développement. ndax lépp yitteem yu mu sa am ci àdduna mooy nu muy dajalee jigéen ñu mu leen wutalee financement ñu mu leen jàppalee ba ñu avancé ma judd ci développement yàlla def ma jàng développement dem ba am ci ay diplôme ba ñibbi si waat Sénégal commencé liggéey ci développement président Macky Sall foog naa 2008 lañ ko xam boobu opposition la nekk ñun ñu nekk ci ministère des finances nekk fa cadre mais di liggéey ci développement yàlla def ñu ànd ak moom président Macky Sall 2008 ba 2012 suñu borom may ñu ndam ca ñaareem. booba opposition metti na waaye teewul ñu ànd ak moom laxasu ndax gëmoon ni li ñu nekk muy développement o koo comprendre gën ñu ko bëgg moom président ñu ànd ak moom ci njaareem ànd ak képp koo xamante ne ànd. madame la coordinatrice jigéenu nu la dañoo bëgg ci yow. tey bésub kontante la ndax dañ ne jàpp promis koy faj ku mu neex ak ku mu naqari madame Guèye kon yow la nga digge woon wax ko ko tey nag damaa bëgg jigéen dundu la ngeen ko seen yu gudd nag fii ba le 23 ngeen fas yéenee sotti tey ree ndax ñun dañoo tegu ci yoon de ñun ci yoon lañ nekk te gis ngeen yoon bu baax bii ñu nekk bëgguñu kenn ku ñu déranger. Nek ci yoon bëgguñu déranger tim suba dama leen a wax ne leen ku ragal na nga daw ndax ma dem ngi dal seen kaw di la di dalal suñu gan gi nga xamne moy madame Diané ñu ngi lay dalal fi ci sa kër ci sa ñu ngi lay bismillah ndax gan bi nga xamne yegg ségul Sary Thiam ñëw kooku kat dafa jar a gërëm bu baax ndax madam man njaareem laa dekk parce que dëkk naa fa say jëf bu baax a baax. dëgg la Serigne Moustapha Dieng daf maa wax ne fexeel ngeen xamante ak madame Diané ma ne ko madame de war nañoo gane si sax. dëgg la Ndulo mu ne ma ah kon de di ngeen xam ne gan ñëw na la Moustapha Moustapha wax lépp lañ gis ci yow. kon madame ñu ngi lay sante bu baax di la ñaanal yalla yàlla gën la katanal amin bu baax amin yaram to def la nga nek ministre amin loo fi da fay lo xamne li da fay deggal li ma nek dëgg la kenn ku ñu nek xamne ne Ndulo moy commune Ndulo moy 56 village yi wax yalla amna am waccu wàccukaay dembu ak barki dembu ak tay dëgg la ci ci waande soo gisee ma bàyyi lépp ku ma àndale ma sant la nga bàyyi lépp ñëw ànd ak ki nga xam ne l'élection d'excellence le président de la République moo fi teg mooy amat ndax jur yu bari wax naa ci keroog su ma digganteeg moom mais li ko yi gën a gën a gën mooy képp koo xam ne kii sénégalais nga te conscient xam nga ne le président de la république Macky Sall muy def ci réew mi waxoon naa ci keroog ci social entreprise la bokk waaye jàpp naa ne wax dëgg yàlla ku am say bët képp xool xam ne yoon bi mu teg réew mi. képp koo xam ne bëgg nga Sénégal bëgg nga Sénégal jëm ci bëgg nga yokk da nga ci ànd ak moom. dëgg la. kon fii sax Fatou Naan Diané madame Guèye muy doom ju baax Sadio Diakhaté maa ngi lay ziara doom ju baax man ak yow ba Gosaas ba Ndiarène yow man ak yow Ndiarène ndax une femme une masque yow yaa dajale woon mbul ak làmbaay te kenn bañul man maa ngi lay salagéey bu docteur Souleymane Soumaré. DG. leen di waaye bu leen ko xeeb waaye dafa boole woon mbul ak làmbaay te kenn merul mu jël nag def social njaareem ba ñëpp gis seen bopp dafa def ñëpp tata tata la lay wax da lay amoon li feebar bi doon bari bari bari gel bi bu ko yoree sax du ko faale danaan sëñ Tuubaa koy faj dalal ak jàmm da ngeen di soxla mos nag waaye téye leen su ngeen téye yéen ñëpp ak nu ngeen mën di toll di ngeen daj macha allah tous di bois ni ko tubaab bi wax doom ji yal na ko yàlla la fa sama jabar nag ñu bokk affaire ma lay ñaanal yàlla li ñu fal sama càmm di yàlla may ndam fal dawam jóg yàlla may ko ci waaye kii tax ma ñëw nduloo sama sanga dëgg la Mamadou li muy papaam ak sama yaay dañoo bokk ndey ak baay eh. te ku gis nen na nen a ngi keroog ba ne fàddaane laay woo laa ko ne dinaa ñëw jàppal mu dëgër am nga jabar ju baax am doom ju baax na ma ko xame mooy njaarim kenn toogatil du nelaw eh. ñëpp jox na leen salaire yal na la yàlla lappal fàttewuma la benn yoon te du ma fàtte ndax kuy fàtte doo as doo di nuyu madame Guèye di ko sant di ko gërëm waaye dinaa ci ñëwaat tuuti njëkkee si son excellence le président de la république Macky Sall président Macky Sall dañ koy sant di ko gërëm nga xam nga lu tax ñu koy sant di ko gërëm dafa yàgg def Sénégal dafa yàgg def ci jigéen ñi te boobu ba léegi monsieur le maire jigéen ñu gisuñu dégguñu bu ñu demee tey ba son excellence tànnal ñu madame Guèye faatu Diané ñu nekk ak moom fii ci département dañu naan alhamdulilah rabil alamin ndax jommi woon nañ jaaxle woon nañ toñ toñi nañ fu nañu dem fa waaye merci madame Guèye jërëjëf ñu ngi lay ñaanal suñu borom def le premier ministre du Sénégal